jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Tivaouane Peulh ci ñu fi woo nag day promoteur boo xamante ne xale la waaye xale bu am jom la xale bu am lu mu bëgg muy idaali ñu ngi njiital ñu ngi production mu woo ñu fi grand combat bi muy def remise drapeau bi dox ci diggante Dab Daan ak xale bi nga xamante ne mooy mbaytin 2 ñoom ñaar rek ñaari xale la yoo xamante ni ay combat espoir lañ mais xale yi saa su ne ñu ngi wane seen bopp ñoom ñaar ñëpp ñëw nañ dañuy dugg xool mbaytin xool dab daan su ko defee mbokk yi ñu waxtaan ak promoteur bi wan leen lépp loo xamante ni am na ci remise de drapeau bi doo lay jël ndox dooley waykat public waaye dooley wasaare lamb yéen la suñu bokk internet yi kaay Adama. ci man benn bitéelu Evian laa duggee ci géew bi. léegi moom matul sëriñ. waaw moom li mais matuma sëriñ nag. Ah, kon mënuma jébbalu ci moom. yow lan moo tax nga ne bitéelu Evian ngay dugg see ci lamb. non am nga ñi may ñaanal yëpp ñoo ngi may ñaanal di ñaan yàlla ñaan gi ñuy ñaan yàlla na ko yàlla nangu mais ku ma xam ci làmb xam ni noon laay ñëwee ci làmb. mystique bi farataaloo ko mais respecté nga ko wala déet. ankay dama ko fonk trop dama ko fonk mais nag dama ko dama indiwul mystique ci géew bi rek liy daan du ñëw làmb. ñaata nga def ci mystique à peu près actuellement ci combat. ma fay yëpp def naa ko fi. deseetoo dara. waaw. kon de ku la jàppale nga jël. waaw soxla naa ko ku ma dimbali moom ma jël yaaram. autorité yi nekk sa gox ñu ngi lay jàppale. macha allah ñëpp ñëpp jàpp nañ fi ku fi mel ni. ku fi mel ni Baba Traoré. billahi jam ñaajo yëpp yëpp yëpp ñëpp. ñoo war a di ko sant di ko gërëm. daf may jàppale bu baax. Moussa le maire Amadou Moulaye sama maire dëkk daf jàppale bu baax. Adama Mohamed Mbaye ñëpp jam ñaajo bi yëpp kuy autorité da nga ma jàppale macha allah. baytin nga ne yow léegi yow yaa ko fi jiitu. maa ko fi jiitu waa quatre ko toog mu ñëw isolé wu toog. waaw moom mu ñëw toog toog a ëffal pare. pare naa bu bëggee léegi. bu bëggee bu bëggee léegi léegi ñu may ko fii. alors ruuba la. donc seen diggante di leen jox ngeen di leen ah, ah, ma indi ko. ñeme laa tax mu jël sa avant. non oui non garaaw jooju baa jëli. ëffal faw ah, ma ëffal leen. dab daan. fii laay toog moom tey fii laay toog tey. damaa gis benn concentration bu garaaw ci dab daan lan la mbaytin moo laaj loolu wala ki ngay bëreel la wala combat bee toll foofu. komba bi moo toll foofu rek. combat bi moo toll foofu parce que bu lépp rombee daa fu teg suñu bët. te combat bi mën nañu fa yóbbu yàlla xam na ko. daan baytin fu la mën a yóbbu. waaw daan baytin kon daan yeneen mbër yi la mais lamb ji doyee lamb ji moo tol pas daan baytin tax ma dem mais lamb ji moo toll foofu fu lamb ji toll la quoi mais du cadre daan baytin wala ñii waaw daan baytin terew ma dem taxul ma dem. boo gisee booy ñaan numéro 2. indi ko Lac de Guiers 2 nekk ci ginnaawam ay sampion yu mel noonu toll toll noonu ne ci ginnaawam lan la lay def yow. ah Boy Niang 2 de champion la ndaanaan la. waaw mbër bu ma naw la wax dëgg fa yàlla parce que man duma ma wax lu ma gëmul. parce que su ma waxee lu ma gëmul tamit mënu maa waane waane ba moom ba mu faral ma loolu mënul ne. booyam la àndal entraîné ko kon moom lay faral moom lay yéene ndam dañ ko koy nangul. ndaanaan dëgg la dama ko koy nangul. seeraane guma ci làmb ji ku ko dàq bëre. kon champion la waaw. naka ay ci xale. non déggoo lu ma la wax. seeraane guma ci làmb gi ko dàq bëre kon champion la. la déggee nara indi xale bi. te nga la déggee de nara indi xale bi nga war a bëreeg moom. kooku du ma wax ay waxam. lu tax non du wax ci moom. du ma wax ci moom. sérieusement man licence bu ñëpp signé moom laa signé. ku ma teg nii rek ma teg la nii ak koo mën a doon. waaw waaw. da gis ni la dëgër de da laa teg nii. non xaw ma ko sax bay gis ni ba xam teg na ma fi wal tegu. da la dëgër de ku ne ci làmb xam na. kan kan la bëreel xaw ma ko. seen la bëreel. ah waaw Eumeu Sène da xam naa ko moom seetaan naa combat am yëpp. Moustapha Guèye de Moustapha waaw ah bëre na de bëre na xay na. defet bi Yaxya Diop yi ki ne am moom moo ko jox. yëgën ni waaw champion dëgg ngi noonu daanaan. ñaan yàlla lépp lu mu def si làmb yàlla nañu yàlla may bañ def ko moom Yékini di ko nangul di ko tàllal nag suñu loxo mu ñaanal ñu ndam parce que xam nañ ni comme ñaanal ndam mu am ndam parce que ndaanaanu làmb la Yékini waaw. waaw boo doon conseil sax. di ko sant bu baa di sant Joal bi yëpp nag bàyyiwuma kenn waaw. adversaire boo ko doon wax actuellement nii lan nga koy wax parce que dafa mel ni dalaa xeeb. jàpp na ni moo la ëpp doole sifflet arbitre moo la fi bàyyi man daal yéenewu ma leen lamb ji arbitre na ni mu la xeebee nii mu yanu rek dóor ci suuf lamb ji jeex. waaw li ma koy wax daal mooy bu arbitre sifflee na indi fëgg boobu noonu boobu mu indi rek na daal sama kaw na xeex lamb daal moom na ko jàppee lamb damay ñëw jëlee ko fi na ko jàppee lool rek ak moo ma neex bu ko jàppee lool neex na ma torop bu ko jàppee lool neex na ma torop waaw bu ñëwee rek mu baax. yàlla xam dama damaa bëgg mbër buy ñëw quoi sérieusement yàlla xam na bu ñëwul nag. Ah, bu ñëwul ma dem. mais bu ñëwee moom man mu ma gënal. ñaata minute nga koy may. ah lu làmb laaj rek xam nga làmb moom. xam nga bu ñëwul ma ñëw. danga naan may naa ko tant de bu ñëwul ma ñëw. ma xool su ma demee laaj sama autorité dëkk yi ba xam comme ça ñoom li war ci làmb yëpp def nañ ko. ma demee laaj leen ma xaar ko ñaata minutes bu ñëwul ma mën a dem. wàllu mobilisation foo ci toll. waaw macha allah ñu fi war a jàpp yëpp jàpp nañ ko. Moussa la maire Mamadou Moulaye Gueye suma papa suma xarit lu mu wax dina ko def. Adama Mbaye lu mu wax dina ko def. Pape Amandaw Seck. Père Baba Traoré. dafa def ba pare. def na defati. wax dëgg fa di ko ñaanal jàmm ak salaam. waaw ba pare di xaar yeneen El Hadj Baba ñoom ñëpp. waaw lamb ji daal incha allahu rabi. lu lu Balla Gaye di indi ci làmb fas yéene naa ko indi. ci mystique. ci lépp. ci mbooloo. ci lépp. ci bëre. ci lépp. ci xeex ci lépp. dëgg ñaar gisuma béjjën gisuma laar gisuma dara ci signature contrat man daal yërëm naa leen. non dina ñëw làmb ja. incha gis làmb ju neex. jili <laughs> jili yàlla xam na ni dama lay lu leer. Mbaye Tine dafa umpale lu bëri. yow. waaw ci man. ñun ñu xam ko ci yow. walla boog muy tay ñaar yooyu rek moo bëri de <laughs> mais yàlla xam ne ni su arbitre bi sifflee nga gis du garaaw. incha allahu rabbi ba bis. dina ci am. ah mën na nekk de mais en tout cas lu war ci làmb ji yëpp man man dab pare naaw yàlla xam ne ni pare naaw. bu ma daagoo dugg géew rek ñu xam ne dab wallaay wuute na dab yi doon ñëw ak bi wuute na làmb ji dégg naa léegi grand bi wax ko làmb ji daa am lu leen mën a may daa am lu leen mën a may man loolu noonu la mën a may wala lu ko raw. kaay Adama kaay. am faneen fu mu koy yóbbu si làmb moo tax làmb ji moom kii lu kii indi dina ko arrangé. Mbaye Tine lu dab daan indi dina arrangé Mbaye. lu dab daan indi. dina arrangé Mbaye. kii su demee Ardo quatre-vingt-dix fois ndam moo ko arrangé te da koy am bu soobee yàlla ndam rek moo ko arrangé. lan moo tax nga doon champion ci làmb kenn du na taabale kan mooy booy ñaa numéro deux ñaari xale yi di bëree nga waat ni benn xale bi day daan kenn ki foo ko teg. gisee soo gisee ma loolu parce que man kii xam naa kii kii xam naa ko waaw. loo xam ci moom. non xam naa ci moom xam naa ci moom qualité yu bari. mën na waaw kii boo nelawee seconde ci làmb ji mu daan la ñibbi soo xeexee xeex bu jaaru yoon mu daan la ñibbi mbër la mu complet xam li mu bëgg su la xool nga daanu sa dalay xool nga daanu moom ndam nu ko amee baax na ñu pare nag suñu booy ñu pare ko pare bu assuré pare bu wóor ci kàttanu yàlla mu war a nekk mbër moo xamante ni combat bii nii dafa war a ñëw pour répéter ni grand combat dama ci war a toog jéegeegul dex est-ce que war naa ree ki lab. non réewul kii réewul ku lab. yow mii laay wax yow mi ne ci guddi gu bët setagul ñëw di indi say booy ne ci. man loolu garaawul man dugg naa duggati duggati bëri naa bëri naa douze grands combats. ah xeeb doomu jalaaw de. déedéet non xeeb doomu jalaaw no wutal koom xam nga lan moo ma indi su ma rak. jour ma gis la te gisul. ay wallaahi wa taalaay kii mu am ndam. billahi wallahi wa taalaay moo ma gënal fuuf fuuf fuuf fuuf sama carrière man. parce que man xam naa moom fu di yóbbu. ak te incha allahu rabbi bu dee entraîné rek ak jox cër ak yaru ak xam li mu bëgg mooy tax mu am ndam incha allahu rabbi dina am ndam waxuma nag yàlla nag mooy dogal mais ñun liggéey nañ loo xamante ni dinañu may ndam te ci bis ba su sumeekoo su ci bëre bi ci état bi ci lépp di nga xam ne kii liggéey na lu ko yàlla lu ko lu ko war a may ndam mais suñ borom mooy dogal te nag yàlla na ko yàlla sutura bu dee man magam laa li ma bëgg si làmb yëpp mi ngi koy def yàlla na ko yàlla sutu su baa yàlla na ko yàlla suturaal. bu subaa boo ñëwee open press ba di nga gis di nga gis loolu. waaw di nga yaa moom mais actuellement damaa gis ni état bi da nga yokkoon jël volume bu bu bari mais dafa mel ni da ngaa wala da ngaa gën a non damaa wàññi. lu tax nga wàññi. combat beex laaj tey jii nga ki may bëreel xam nga rëyul waaw ma lu ma jeex jeex maa koy gën a diis moo tax soxlawul yenn poids yi quoi da xaw a ñëw toll ak moom rek bëre bi gaaw nga daan ko dem ñibbi waaw. nee na da nga koo wala nga ngay tay taylu lan moo la ci daal da nga koo xamul wala da ngay tay ci ko non maanaam xam naa ko bu baax moom quatre combats am yëpp seeraan naa ko moom dab daan te moom xam naa ne mosul seeraan sama lamb Ibamar. mais man combat yi muy bëre yu bëri maa ngi sat di ko suivre combat moog dégol bu ngoy xam nga yàgg na dégol bu ngoy sama waayal combat maa ngi sat boobu boobu ñu ngi bëre ay petit combat diggante moog caar yoraax maa ngi sat moog mbay guy gi ak moog loosoo yëpp maa ngi sat xam ne xam naa ko ndaanaan la moo tax ma jël ko mais bu jàppee ni man xeeb ma ko benn yoon bàyyi jiil ma du ma mbër ci làmb mukk de la jamais de la vie billaay wala du ma xeeb mbër. mbër kaamil la champion la. lan moo koy daan. kii lu koy daan liggéey. ak jom fulak fayda. loolu def nañ ko ba pare combat bi li ci des bëreetul ngeen taxaw ci digg géew bi lan moo koy daan xeex wala bëre. waaw loolu làmb ji laaj lek bu dee xeex moo koy daan man maa ngi sama ginnaaw ganaay bu dee bëri. bari nee nañ xeex arrangé wu parce que relance bi moom dalaa sut gën la gudd. kii bu ñu xeexee ma duma ko ba mu génn saako yi mbaa daanu. xeex amul ay ay njool waaw xeex ñeme la. pare nga pour affronter. loolu ngay wax ndaag mënta ñàkk foo jaa ñu affronter ma ak foo jaa xeex foo jaañu ñu jixaat kuy gee dina mel ne mbàccum gerte moom. ci wàllu mobilisation foo ci toll. day pare naa. suba kay boo ñëwee di nga xam ne Mbaye Tine mii kat nar naa toj esaat waa Gunaas ñetti mbaar Baxdaat Géejawaay waa Lagros nag ñëpp a ngi waajal seen i kaar. wax naa ko Idaly nee naa ko bu buñ ñu tooñ parce que xam nga ne open press Mbaye ñëpp dañ koy xaar nga jàpp ko dimanche lu tax dimanche te dimanche xam nga ne calendrier làmb yëpp dafa saturé. non dimanche suba lamb amul de. ko waxat fa la làmbam làmb simple. làmb ngi fépp yëpp fépp. ah mais suba xam rek damaa xam ne gars yi dañuy am temps xam nga sama ganaane sama koñ ak yooyu ñu may jàppale ba gars yi génn xam nga mooy loolu quoi moo tax moo jàpp ko dimanche. loolu kasa la. waaw di woo ñëpp nag di woo Maguette Seck nag maa ngay sant bu baax a baax. waaw am na combat te su kàttanu yàlla day daan damay daan damay daan damay daan. jox ko sama pouvoir mu dem jàpp doomu jalaaw duma ko daan ko si kàttanu yàlla waaw ñun moom làmb dañ koy jox cër dañuy entraîner rey suñ bopp ñëw wala jom ak fula ndam nag yàlla moo ko yor mais jour ba maa yàlla yàlla na ma yàlla may ndam si kaw dab daan nañ xaar ba ci kanam mbokk yi ñu ngi leen di waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di siyaar autorité yi nga xamante ni fekk nañ leen fii yëpp dafa am koo xamante ni xale la nekk xale bu am jom nekk xale boo xamante ni dafa nekk ci làmb bi mu ñëwee ba léegi mu ngi jàppale xale yi làmb muy ñing production mu leen di présenté affiche bu mag bii nga xamante ni dafa dox ci ñaari xale yoo xamante ni fu ñu déplacé yoo ñëw mbooloo mu bari da leen di topp kii di dab daan nga xamante ni mbooloo da koy topp xale la boo xamante ni mën na bëre am na technique mën naa xeex xam na li muy def te dafa fonk bis ki muy bëreel di Mbaye Tine 2 nekk xale boo xamante ne bu ñu nee foo yeewoo ñu ne ci keppaaru Lac de Guiers numéro 2. foo yeewoo ñu ne ci keppaaru Boy Niang numéro 2 xale la boo xamante ni ku mën a bëre la xale la boo xamante ne bu déplacé woo mbooloo da koy topp bis bi nag du tuuti borom lay tollool ki jël bis bi di idaali ñing dara jaale ko ki nga xamante ne mooy madame euh, Assane Diatta nekk koo xamante ne maire la boo xamante ne wala ministre la boo xamante ne réew mi nawloo nañu ko réew mi rafetlu nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ne mu ngi koy def moo waral tey idaali ñing jël bis bi tuddee ko ko gannaaw loolu balaa mbër yi di wax dañuy jox idaali ñing mu présenté wu wax lan moo tax mu tuddeeku ko drapeau bi su ko defee ñëweel waxtaan bi promoteur bi maa ngi lay nuyu di la siyaar bu baax. Baye Jili di wax ne auzu billahi mina seytaan rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu Baye Jili baake di ko ñaanal mu yàgg fi di wér di ko ñaanal suñu Abdou Karim Mbacke di ko ñaanal sax ndigal seen ñooñ ñoo may ñaanal maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm di kontaan ci waa Kër Massar bi yëpp rawatina ministre bi nga xam ne mooy ministre commerce ministre euh, Assome Aminata Diatta ñuy kontaan ci euh, drapeau bi nga xam ne moom lañ ko jox le 26 arène nationale di nuyu waa Kër Massar bi yëpp di wax ne boo gisee ñu jox ko bis bi mooy liñ gis ne Kër Massar mu di def ci man fi ma ko jàppee mooy mais dafa def système boo xam ne mu rafet lool muy ci nawet bi ma gis mu jënd ay groupe yu bari yoo xam ne maa ko tey pour ndox mi déplacé ci nga xam ne mooy goxu Kër Massar yëpp bañ am benn jafe-jafe ma gis loolu am ci mbégte te ku ne xam ne ne ci ndaw laa ci làmb di ci yëngu ma gis ne xam naa ne am na loo xam ne bëgg na ko Kër Massar gi te yaakaar moom mi ngi jàppale xale yëpp pour ñu kanam te itam fexey na ba déplacé wu li nga xamee ne mooy ndox mi daan taat Kër ma saar gi yëpp ba jóg na fi ñu kontaan ci moom nag jël bis bu mag bi nga xamee ne maame ko mooy bay mbaytin ak dab daan yëkkati ko joxo ko ci kontaan nag nga xamee ne dañ ko joxe ci fierté boo xam ne maame ko li muy def Kër Massar rëy lool moo tax ñu jël bis bi joxo ko daal di ci woo mbokk suñu mbokk Bawol Bawol yëpp di woo amateur yi lamb yi di woo waa Casamance yëpp rawatina Kër Massar gi nga xamee ne fi lañ yeewoo ñuy wax ne maam nga ñun ñëw jàppale seen doom xam nga di nuyu Fallou Mbaye mi nga xamee ne su xamee ministre bi bokk na ci moom waaw di nuyu waa ñoom Omar mi nga xamee ne liggéey mucc ayib la ciy def may kontaan ba baax a baax di remercier drapeau bi ñu war def fii ci Kër Massar di wax waa Kër Massar gépp nga xamee ne mi ngi koy liggéey jigéen la koo xam ne wax dëgg yàlla jigéen ku man góor la daal comme ni ko Baye Bass di waxee ci publicité bi ñu ciy kontaan bu a a Mbaye Tine numéro 2. combat bi am na fu mu lay yóbbu ngeen fas yéene bëre drapeau bi nga xamante ni jigéen bu mën góor la tey lan ci wàllu mobilisation fan nga ci tool. auzu billahi min seetaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonente bi sant suñu ñaari waajur di ñaanal ñëpp jàmm képp ku fi toog di woo waa jam ñaajo bi yëpp 1 ba 22 bàyyiwuñu kenn di nuyu asom Aminata Diatta kon ni ma ko waxee jigéen bu mën góor di ñaan président Macky Sall mu jàppale genre yi parce que jigéen la boo xamante ne nii mooy def lu góor mënul xam nga waxuñu ko ngir lu fi toog parce que ñun xam nga kenn joxuñu lu ñuy dundee mais xam nga da ko jëf ñu gis waaw xam nga lu fi mel ni si nawet bi xam nga gis nañ waaw ah, ah, ah, gis nañu acte yu naaj yu mu fi def xam nga ak yeneen ak yeneen xam nga di ko ñaanal jàmm di wax la président Macky Sall jàppaleel Assome Aminata Diatta parce que kii xam nga ko jàppale xam Euh, mu dem ci kanam incha allahu rabbi di ñaan yàlla ci kattanam ak mbaaxam mu may man ndam ci kaw Mbaye Tine ñun fay ñu ñu weccet ay millions yu bëri la promoteur bi écouté jox ñu ko fay ñu ko xam nga pour ñu préparer suñu làmb làmb ji nag xaw na yàgg métti na trop ci ñun métti na ci Mbaye Tine métti na ci man dab daan bu baax a baax di wax ministre bi mu jàppale Mbaye Tine bu baax a baax a baax ci làmb ji parce que xam naa lu fi daj xam nga man tamit même chose xam dañ naa ci làmb ji lu tar lu met parce que làmb ji yàgg na di la tàllal suñuy loxo nala la xam nga jàppale ñu bu baax baax si làmb ji si wàllu biey yi ak wàllu kaar yi ma ñëw defalal mbaytin bu jur mu jeex tàkk incha mbaytin dégg nga li mu wax lan nga ciy dolli. waa dégg naa lu ma gannaaw ma sant yàlla julli si yoon bi maa ngi sant sama ñaari waajur. waa di sant ministre bu baax ndax li yombul ko waa lii yombul. ndax moom day jàppale waa Kër ma xam nga di jàppale ñëpp. waaw ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko wax nag. moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. waaw di ko wax nag. waa mooy loolu gis na li liggéey. waa fii si Kër Massar si amay dégg. di ko ñaanal jàmm. waaw comme ni ko dab daan waxee nag làmb ji yàgg na trop nag yàgg na trop trop. di ko wax nag mu jàppale ñu si combat bi ndax moom borom baax la. doomu waa doomu Casamance la sama mbokk la. Hmm. isi amay dégg. maa ngi wax mu jàppale ma si combat bi bu baax a baax jàppale dab daan ndax làmb dibi corona bi ba léegi. ñu ngi préparé incha may dégg. Hmm. waaw dab daal nag maa ngi koy ñaanal jàmm ba jour yàlla may man dam si kawam. Hmm. man nag mënoo ma wax quoi man ñoom jëf laa mënee. Hmm. waaw loolu quoi ñu lay <laughs> ñu wax ñu mais ba jour ba bu ba moo la gën a xam ne day tëdd dab daan lan moo koy tëral. xoolal rek dama ko mën ëpp ko dool daa koo bëre. a ko lépp drapeau bi drapeau bi géejawaay la jëm dama koy jël yóbbu ko géejawaay yóbbu ko Casamance sama dëkk cobam. waaw. drapeau bi drapeau jàmbaar la jàmbaar moo koy jël. ay wax kese jëlu ko incha allah rabbi dama lay daan jëlu ko yi. boo xoolee boo leen xoolee man ministre bi ñoo bokk fu ñu taxawee. madame la ministre ginnaaw loolu dégg nga xale yi li ñu jot a wax ñu nekk say doom eh, promoteur bi nekk sa doom. ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi ñëw ci làmb ji rek yaakaar naa say njaboot lañ euh, ban message ngay lancé ci loolu ak lan ngay wax xale xanaa déjà di féliciter ñing parce que dëgg la yàgg nañu toog euh, ci mbir mu làmb bi waaye xam ngeen nag euh, problème pandémie bi moo taxoon ba yëf yi yéex mais comme yegg si nañ ci incha allah xanaa di ñaan vraiment suñu ñaari champion yi yàlla. jàppale leen ba nga xamante ne que le meilleur gagne dans tous les cas jeunesse bi rek victoire jeunesse bi lay doon te euh, jeunesse bi bu gagné rek dëkk bi yëpp a donc maa ngi leen di féliciter encore une fois di leen di encourager euh, di encourager encore une fois ñi ngi di ko félicité tamit ci liggéey bu mucc ayib bi nga xamante ne mu ngi koy def ci làmb ndax làmb nekk na sport waaye tamit culture la mhm. donc il faut que nit ñi xamee ko noonu te looloo tax nag ñu boole ko ci li nga xamante ne moom mooy aska aska encore une fois mu nekk euh, benn cadre boo xam dañ ko fi teg pour fexe ba ñu gën a promouvoir lii di sport ak culture ndax nag gis nañ ni dina amal njëriñ askan bi dina may ndaw yi fu ñu jàpp waaye tamit dina participer ci li nga xamante ne moom mooy boole xol yi ba ñëpp mun a dëkk euh, dund ci jàmm ak salaam maa ngi leen di gërëm di leen sant. madame la ministre ñaari xale yi bu ñuy jóg mbooloo da leen di topp ci wàllu jàppale ak mobilisation fan nga leen ciy jàppale. ñu ngi ci liggéey donc staff bi ñu ngi ciy liggéey euh, je pense que bu ñu paree déjà ci journée bu tey bi rek. dina am benn rencontre boo xamante ne staff bi dina ko def ak promoteur bi pour ñu mun a xool lépp loo xamante ne mën nañ ko jàpp tout ce que nous voulons faire moom mooy fexe ba bés bi doon bés bu mag ndax nag gis nañu champion yi gis nañu seen yéene gis nañ seen pas-pas waaye tamit gis nañu ñing mii nga xamante ne vraiment euh, mu ngi ci liggéey liggéey bu am solo donc di leen di remercier di remercier encore in fois le président de ASCA waaye aussi di remercier Serigne euh, fallu mbay mi nga xamante ne ci moom euh, la ñu jaar maa ngi leen di gërëm di leen di sant.